comme li ma jiital nuyoo bi léegi bu ñu ubbi kàddu bi tàmbale ko ci sunu xalifa yu tedd yi nga xam ne amuñu lu dul ñoom lim naa ko léegi may faral di wax ne kuréel gii di convergence taxaw na mag ñi yaakaar naa mi ngi bëgg toll ci ñeenti at ñépp xam na ne ba muy tàmbali la mbir mii di am ci jamono yii tàmbali am ku ni wax usmaan ba nekk ci Gabon yëkkati ay kàddu wax ko ci sunu maam yëpp ñu jàkkaarloo ak moom ba nga xam ne polis bu Gabon teg ko loxo vingt et quelques jours jàpp naa ne dañ ko tegee ak loxo ak léegi ñu demandé woon état du Sénégal ñu indi ko Sénégal booba léegi ñu tuur waaye nag mel na benn sos kuréel boobu dafa fekk ni lii lañ xamoon wala lii lañ seen tuur mu egg foo xam ne nag tey dañuy ñëwaat te dañ tàmbale woon mooy bésum kanam borom moo koy fay lu ko waral ci tey ñii nga xam ne suñu maam la bu ñu tuddee maam El Hadj Malick tudd Seexul Xadiim dudd ci seexul islaam dudd ci sëriñ Jarabat sëriñ Njaasaan ak sëriñ maam li maamul sëriñ Muxtaar dudd ci jarno ma si daal mën na wax ne tuddal dëkk yi yëpp ma yaakaar ne am réew xam ne ñoo fi nekkal diine ji ma yaakaar ne état bi moom fii toll aaroon na aar na boppam léegi nag ñun kan moo ñuy aar Cheikh Mouhamadou Mountakha kan moo koy aar ci wax yii sëñ Babacar Sy Mansour kan moo koy aar xëy bu ko tedd ba nekk mi ngi bàyyi kan moo koy aar ba bërki dem mu ne bu ma waxee xam naa lañ cay teg ñun lan moo ñu war wax wi ñu dama jàpp ne benn nit kese yàlla bind ko wala xadi karam naa bànni adama moo tax nit ñépp lañ war maam waaye nit ku yor këram di maam ami sëtam képp ku jàkkaarloog maami jàmbur jooju saaga ko war naa jóg taxaw ñun nag ñu yor maam yoo xam ne bi nit ñi di nelaw suñ maam yi ñu ngi di ñu ngi jàkkaarloog yàlla suñ borom tabaaraka wa taala suñ maam ñu ngi jàkkaarloog yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dara waralu ko ay nit yu jàng yeneen i jàng wormaal yeneen i mag yi dëkk ci yeneen réew ne tey seeni réew yi mag du leen wormaal mais fii ñu toll mbir mi day bëgg a egg ci kàkk bi kàkk xam nga kàkk kàkk mooy lan mooy nag am na baat bu ñuy wax waaye ñun dañ koy wormaal pesum kanam borom a koy fay lu bëgg au niveau di convergence taxaw doone mag ñi ndax naka jekk ñun dañu tënku ci am état muy réew danaan kat lii di am war naa mën a indi leneen ndax convergence bi bi koy sos ak di ko taxawal da cee bokk ci ponk yi ponk yoo xam ne xam na ne ñaar moo mën a indi jafe-jafe ci am réew muy affaire religieux muy wàllu tarixa wala war a wàllu indi ñu ni lii buñ ko defee képp ku yëkkati kàddu foo mën a bokk boo ci waxee loo wër wax kuréel gi dana jëkk état bi jaare ko ci état bi kooku ñu mën ko teg loxo bala muy indi réew mi nekk ci guuta waaye dafa mel ne mbir mi mi ngi gën di yokk egg nañ ci di wax ne kenn du màggale dañuy taal ay oto ci bu ci yoon yi egg nañ di wax ne kenn du gàmm ji loolu lañuy def ak naan taluñu ay gàmm taluñuy màggal ma yaakaar ne tey mag ñooñu boo ci jëlee ci kii ñu nekk ci biir am péncam tey ñu ñëpp ñu jëlee mu doon péncum ñëpp ba muy woote màggal lan la waxoon mooy kaay leen ngeen sant la ma su borom tabaraka wa taala waxutoon kaay leen ngeen sant ma waaye kaay leen ngeen sant la ma sa su borom kaay leen ngeen julli ci yonent bi tey jii boo demee ci waawan dem ñiseen dem eh, canaba dem dem njaasaan kenn ku ci nekk màgguloo gàmmuloo lu dul yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wootuñu gàmmulu seen jàmm ji seen njarek àdduna déedéet dane adduna yonent bi la di gàmm kon tey yaakaar naa ne mag ñooñu am na leneen lu mu war a mérito am na yeneen taxawaay yu ñu war yu dul lii di am ñu ne convergence bi bis ni ki tey dana jëg ak jëg gu bees mooy taxawale ay comité ci 46 départements yi ndax ñi fi nekk ci ay membres xaw tuuti mu mat 200 personnes ci ay kilifa yoo xam ni am nan ak njaboot. ci kilifa yooyu dëkk bu nekk bu nu fa amut njaboot am nañ fa taalibe wala ñu am fa soppe ñu jàpp ne ñii ñuy wax sax ay parti politique tey yii ci tey ñun kilifa yii buñ àndee fenn fu nekk ci 46 département yi ñu taxaw fa suñu mbooloo gëm na ne kenn du ñu attan ci réew mi ca gëm na ni lépp luñ war a mën a faj danañ ko faj noonu ñu koy taxawale ci 46 département yi noonu lañ ko fas yéene taxawal ci diaspora bi yépp fa séeré nag ñoo ñu ngi wax ay tunkara la xuma ay Enerton xuma ay Kalso xuma tur yi yu kenn xamul maa ngi woote appel bépp daayira tijaan bépp daayira murit bépp daayira laayeen bu nekk ci bitim réew maa ngi demandé ñu contacter convergence nekkal ñu fa képp koo xam ne gis nan ngay wax loo wut wax segam ñoom ñoo capable di dem ci ay ambassade di ko attaqué ma jàpp ne murid ya fa nekk ak tijaan yaak laayeen ya képp ko wax ci seenub sëriñ capable nan war a mën a saafara loolu ndax nag fii ñu toll nag weneen njëg la di yëg ndax trop su trop la ko nit di waxee fii ci réew mi nag liñ fa séenéem ñun képp ku yëkkate ay kàddu ko man di doon à part aujourd'hui tey ñu ngi koy commencé di saytu ak di ko xeeñtu kay fa séené nanu def sëriñ yooyu ba nga xam ne képp ku def lu mel noonu danañ ko jaar ci yoon mun ko jaaree ci yoon nag bu yoon deful la mu war a def yaakaar naa ne quatre-vingt-dix pour cent yi wa yaakaar naa ne ay tijaan lañu ak i murit ak xaadir ci am nag bu ñu jógee pour saafara ko gëm naa ne ku mel ne am nangam sàll ko moo Omar Sall la oustaz nan bu mënee yëkkati yenn kàddu yi di wax di taxawaalu ci réew mi dara fekkutu ko fi waaw ana jaan yi ñi gëm maam Alaaji Maalik ak maam eh, Seexul Islaam ak sëñ Jaraba ana murid gëm Seexul Xadiim ma ne fii ñu toll fii ñu toll laa wax conversation bi jëg na taxaw képp koo xam ne ni oustaz Sall ak wala keneen ak keneen wax nga lu mel wala def nga ko ñun dana taxaw ak comité ba séeréer jàmbaarloo ak yow ak yow jaare ko ci état bi bu sëttuwul nag ñu jàkkaarloo ak yow parce que nag réew mi dafa am ci lu mu tënku lim tënku képp ku ko jalgate ca état bi jëful li war a jëf jàpp naa ne bu boobaa it képp koo xam ne taxaw nañ saaga sa maam ka ko saaga nga war a mën a jàkkaarloo ak moom maa ngi leen di nuyu maa ngi leen di sant maa ngi leen di gërëm lii laa ne woon ay kàddu la yoo xam ne convergence bi dana ko lancé wax leen ko xam ne à part aujourd'hui bi liggéey bi tàmbali na ci 46 département yi leneen la ca tegee muy lii am ci wàllu gone yi ñi ngi koy ñaawlu di leen wax ne nit lépp lu muy wuti ci àdduna njariñ yoo fekkee tax lépp lu nit wuti ci àdduna rek njariñ loo fekkee tax ma leen di ñaan na lépp lu bëgg wuti ci àll ba nañ ko teg ci lu leer bala ñuy génn réew mi parce que li wuti lépp seen njariñu moo tax pour tey li ñu wuti lépp seen njariñu askan moo tax waaye gëm naa ne njariñ loo fekke yenn demeen yi ak yenn doxeen yi gëm naa ne dara jël ko ci àdduna te gëm naa ne fu nit jaar ba am 2 millions 4 millions gëm naa ne loolee nga am boo fa toogoon fa nga nekk yàlla mën na laa li mën na laa dimbale ndax yërmande ak wërsëg ak xéewal nekkul ci loxo kenn ku du suñu borom tabaaraka wa taala leneen li ci des it jàpp naa ne sëñ ba dikke fàttali na ma ko léegi nii buñ ci jógee danan demandé bi de l'intérieur ci turu convergence taxaw noonu mag ñi toog ak moom nan toogee woon ak Aliou Ndiaye waxtaan ak moom ñu toog ak moom wax ak moom fas yéene nag lii ñu jëm luñ ci jaar mu ne danañ ci jokkoo ak ñoom wax ak ñoom lan ca man bu fekkee toogut ak ñun nag bu boobaa it ñu continuer sunu liggéey incha allahu rabbi maa ngi leen di sant maa ngi leen di gërëm asalaamaaleykum